ki leen doon wax man maay kan ci ak tënk dama ko naan sëriñ ma sàmba mbakke ak taaram ba borom ñetti kaala yi niroog Cheikh Bamba saa biñ dajee loolu laa koy wax bu ma dajee ku tudd ma sàmba laa koy néew eh, yombalal nga ma mbir mi ndax am na parti bu yaatu boo xam ne bii dama ko naroon a jagaleel wax leen luy patrimoine wax nga ko kon loolu jaratul ma di ci dellusi xanaa wax rek ni danga koy jotee ci taarix segg ko ndax mënoo koo jeexal euh, wéyale ko jox ko ñiy topp ci yow euh, ci noonu li may wax nii man kenn nit rekk laa boo jëloon bànqaas bi ma bokk ci wàllu gëstu euh, nga tënk ñu ñun ñi ciy gëstu ñépp walla nga boole bànqaas yi te yépp mënuñoo jeexal mbirum sëriñ bi kon bokk lott naa man ci jeexal lii euh, turaasu bi aju ci taarix ak bi aju ci jëmmal euh, lott naa ci jeexal ko euh, ñaar fukki waxtu juróom laa koy jàngale université tey ngeen waxoon ma une heure mujj mu nekk ñaar fukki minute kon boog mu ngi noonu xanaa fàttali rek ni am na loo xam ne lii jot nañ ko ci bind mu nekkoon loo xam ne lii kuréel gi sëñ Chérif Mbàkke jiite moo ñu ko sasoon ñu bind ko lenn ci li ma war a waxtaane mu ngi ci téere bi ku ko am eh, dina gën a leer bu fekkente ni li may wax ni jot gi mayewu ko boobu ñu duppee woon ko kër këru barkeelu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul musée du mouridisme ñu génne woon ko ci septembre 2020 eh, turas boobu nag muy patrimoine suñ ko jëlee mën naa nekk fu nekk maanaam presque murit boo gis musée la mu murit boo gis rek musée la manet na koo denc mu nekk ci pénc mi euh, mën naa nekk ci biir bopp nit ñi euh, mën naa nekk fu nekk ñu di ko ko fàttalee waaye li ci gën a ràññeeku ci àddina mooy ni ci ay musée lañ koy def mu doon ay béréb yoo xam ne yii dañ ko fay dajale musée yooyu nag ku nekk kuréel gu nekk askan wu nekk réew mu nekk mbooloo mu nekk yaay tànn musée ba dëppoo ak yow sa gis-gis nga defar musée bu mel noonu kon bu ñu nee musée du mouridisme du niroo ak beneen musée lu dul dëppoo ak mouridisme te sëñ Muntaxa joxoñ na fi ñu jëm kon yombalal nañu mbir mi sëriñ bi géej la géej nag lu nekk nga ca biir waaye kenn mënu koo xajamal kon bu boobaa bu ñuy tànn dañuy tànn li nga xam ni moo dëppoo ak joxoñ bi ñu def ko ci musée boobu euh, patrimoine historique ak patrimoine symbolique dañuy tënk rek ci lu gaaw mooy jaar jaari sëriñ bi euh, ak euh, Euh, ay euh, njàngaleem euh, lan lañ ci mën a jàpp loo xam ne lii war naa dem ci ci musée loolu gëstukat yi def nañ ci lu ràññeeku ñi ci gëstu bari nañ bari waay goo xam ne gii am na kenn ci ñoom sax ku ni boo jëloon ñiy gëstu ñépp ci sëriñ bi ak yoonu murit ñoom ci seen bopp mën nañoo nekk ab tariixa waaw mu ni la les chercheurs de la confrérie et la confrérie des chercheurs à chacun son marabout max pour tous euh, kon yaatu na lool euh, li ma bëggoon a def rek ci wàllu taarix diggante sëriñ bi bi mu ganee àdduna ci 1853 ci Xuru Mbàkke ba ba muy jeexal ak ndawam ci Poroxaan dellu si kajoor dem bawol euh, wër na fi ay réew yu bari dem na fi muritani dem na Siin dem na Saalum dem na bawol dem na kajoor euh, dellu si bawol euh, ci noonu ci wàllu njàng ku ci ràññeeku woon la ba jaaxal ñi mu jamonool ci wàllu xam-xamit ku teel a bind la bind ay téere yu yéeme benn boo xam ne moom la ñuy wax masalikul jinaan am na lu mu ca wax ca ba mu koy tàmbuli di wax ni sama ñàkkuk ràññeeku ci jamono ji bu mu tax ba nga ñàkk maa nangul euh, ni téere bi ñoŋe ak ni mu euh, baaxee euh, bul bàyyi itam li ma nekk nit ku ñuul Euh, tax ba doo jariñu ci euh, li ma li ma lay indil euh, ki nga xam ni moom la yàlla gën a fonk mooy ki ko gën a ragal te amu ca xejj ak seen surtout lu jëm ci sa melo sa melo der mënta tax nga doon naata xoona mbaa néewal sa ràññee ci loolu nga gis ni soixante-dix ans avant que ñoom Aimé ak ñoom sengoor di wax affaire négritude sëriñ bi euh, tëj na làmb ji ci wàll woowu euh, liñ ñu gën a xam nit ñi gën koo xam mu ràññeeku ci réew mi ràññeeku ci àddina moo yoonu géej gi jóge fa dem yoonu gànnaar euh, sunu mbokk mu nuy wax jaawu fay def ci gëstu bu am solo ci jazaawu zakooru sëñ Moussa Ka diggante Ceyeen ba Njaareem muy 1912 1927 mu dellu Touba. sëriñ bi ak ndawam bala ngaa xam dëgg li mu liggéey nga xam ak ndawam ci li mu ko lu mu dëppool ak jamono ak ñan la ko séqaloon su fekkente ne xamoo jamono jooju ni mu meloon xamoo lim ñi mu ko séqaloon nu ñu meloon euh, doo mën a natt dëgg dëgg dëgg li jeexitalu lim ñu lim ñu indil ndax ci jamono jooju fitna bari na lool lool lool ci loo xam ne lii ñun ñii mënuñu ko sax xalaat waaw waxuma la yoon wi ñu ko yóbbu ci géej gi tartar yi mu am waaye laata moo dem géej gi réew mi ci boppam alkande gi fi nekkoon ak tartar gi fi nekkoon ak fitna gi fi nekkoon soo ko xamul mënoo xam li sëriñ bi indi day des muy ci wàllu fitna fitna bu jóge ci nguuri ceddo fitna bu jóge ci nguuru tubaab fitna bu jóge sax ci Euh, nguur yi nga xam ne yi dañoo soqeekoo ci xeexub jiyaar dama leen ciy jox ay firnde yu néew boo demee ca Kajoor am na kenn ku fa nekk euh, dammeel euh, dafa laaj sëriñ mooy doomi garmi yi dañoo amoon ay jaamaarloo ak doomi soxna yi dafa laaj sëriñ si ni leen da ngeen may ñaanal ma nekk dammeel sëriñ si gis ni muy doxale xam ni kii kat xëy na bu nekkee dammeel du gën ci ñoom ñu bañ ko koo ñaanal mu dem seete ab jibarkat jibarkat ba ni ko danga may reyal juróom-ñaari sëriñ te loolu waa Kajooree wax de du man maa ko wax mu rey sëriñ ndëng tàlli rey sëriñ pakala rey sëriñ ndijaan sëriñ wal walawlaan sëriñ géey sëngu sëriñ géej géej kooku li ki ko def li mu ko bi mu ko defee pour falu dañoo jàpp ni dafa def ay jaloore pour ay juróom-ñaari boroom xam-xam ngir falu ñu jàpp ni li nga def ay jaloore la won na leen jamono jooju lan la to lan ci lan lañ nekkoon euh, yemul foofa waaye euh, mën nañ ci gàttal ñu jàpp loolu nga jël jamono Amari Ngoone Ndeela mu jaamaarloo ak sëriñ si ñu boom sëriñ ma Lamine Sarr ca caareen euh, doomi soxna yi àndandoo fañu xeex ak moom mu daan leen rey ci ñu bari ñii mu jàpp leen jaay jaam kon ngeen gis jamono jooju jamono ju tar la woon ginnaaw loolu ku nekk dégg na Samba Sadio 1875 Amadou Cheikhou daje fa ak Lat ak Alburi euh, euh, ñu daan ko ci noonu dem nañ ba ci Amari Ngoone Ndeela euh, euh, jànkonte na ak euh, almaami Abdel Khadir Kan ca ngoy jàpp ko yóbbu ko Kajoor kon mu doon ay jaamaarloo yu tar diggante doomi soxna ak doomi garmi sëriñ bi loolu yépp boo jëlee Maba Jaxu ci ay 1860 la taal jiyaar ci tooñ gu leen ceddo yi daan tooñ mu taal jiyaar nguuru ceddo yi xawoon nañoo néew doole ci jamono jooju mu dogee mu jógee ñooro ci lu gàtt mu yegg jolof ci yoon wi jaar na euh, Mbàkke euh, am ay tolof tolof yoo xam ni jiyaar jooju teg na ko ba mu dal sax ci euh, njabootu sëriñ bi am na bàyyi taxam boo xam ne bi ci la wàññeekoo rakkam ju ñuy wax soxna Faati Mbàkke ñu gëf ko maamam maaram Mbàkke eh, eh, toxu eh, dem Saalum ci loolu kon mu doon ay jaar-jaar yu am solo yoo xam ne sëriñ bi da koo teewe ba pare jàngat ko njàngat mu yéeme ndax jamono jooju jamonoy fitna la jamonoy coono la jamonoy ñàkk la jamonoy alkande la jamonoy tolof tolof yu bëri mbas mu bari am fi lëmbee réew mi mu gën a metti fuuf mbas mi ñu dund ñun euh, gërmi yi ak ceddo yi gëm ni lépp lu xew rek jaamaarloo rek ko mën a sottal euh, jamono jooju jàmm rek la soxla woon waaye nit ñi loolu dafa dafa dafa lëndëmaloon jamono dafa lëndëmal seen xel ba gisuñu menn pexe gisuñu solution bi ñu war a gis sëriñ tuubaa ñëw euh, gis yoon wi ñu war a jaar mu di ko wane ci ay firnde yoo xam ne yi euh, ba jamono ji il faut nga teewlu bu baax pour man koo jàngat xam li mu wax ak waa jamono euh, ci cosaan waa axlul mbàkke sanc nañ dëkk yu bari dëkk yiñ sanc yépp mbàkke dafa am ca turwa euh, boo demee euh, dinga am mbàkke jolof mbàkke bawol mbàkke kajoor mbàkke baari xuru mbàkke mbàkke ndimb sëriñ bi moom sancul benn dëkk bu am tur dëkk bi mu njëkk a sanc daaru salaam la tudd xanaa xam ngeen ni kay kuy seetlu mën ngaa xam ni jamono jooju sanc dëkk bu daaru tudd daaru salaam rek waroon a am ndax fitna nekk na fi jong xam ne jii jéggi na dayo sëriñ bi sanc doon na ca ay maamam ñuy sanc ay dëkk di leen tudde mbàkke mu ñëw indi lu bees pul sanc ab dëkk tudde ko daaru salaam lool rek doy na programme lool rek mënoon nañ cee samp musée te dafa dëppoo ak li jamono ji soxla fi mu nekk nii boo toogee di seetaan télévision sa néeg sa salon da ngay yaakaar ni ginnaaw salon bi nga nekk àddina bépp ngi tàkk kon boog delluwaat ci loolu mooy li sëñ Muntaxa di wax ni mooy ràmmu jamono te mooy soowee àddina bi bu ñu delluwaatee gis lim ñu tegtaloon dinañ xam ni mooy tontu li gën a leer ci fitna ji amoon ci àddina ci jamono jooju ak jamono ji ñu nekk nii donc mu samp dëkk ba tuddee ko Daaru Salaam sëñ Massamba maa ngi yow bokkuñu heure bi addiya la addiya <laughs> waaw eh, ci noonu yemul ci loolu mu sanc mu teg ci ay biir bu gàtt sanc Tuubaa wax nañ ma ni eh, sëñ Ahmadou Bachir Mbàkke bu daaru mufti moo ma ko leeralal nee na ma benn baat boobu benn yoon rek la ñëw ci alxuraan tekki ni buñ demee àllaaxira ñi nga xam ni ñii dañoo texe garab googu mooy doon ay branche yu leen di indil xéewlu yi ñuy xéewlu ci biir Tuuba sëñ bi samp fa ay kër Daaru Xuddoos euh, mu sëñ Mouhamadou Moustapha Daaru Xuddoos di tekki yàlla mi nga xam ni mooy aji sell ji Daaru Minan mu sëriñ Basiiru këru xéewal yi daaru karim aji tedd ji sëriñ Masamba daaru rahman sëriñ bu kër yàlla mi yërëm te ëpp yërmande daaru muxti maam Cerno Ibra Faati kër yàlla miy maye miy joxe kon ngeen gis ni kër yépp ay turu yàlla la loolu war naa feeñ ci lu leer ci musée bi euh, lépp donc di ay turi yàlla te li gën a yéemu ci mbir mi mooy ci arab la koy wax waaye boo demee ci réewi araab yi doo fa fekk kenn benn dëkk bu tudd noonu loolu moo tax mu nekk patrimoine mouridisme ci mouridisme rek nga koy fekk donte ka arab la koy waxee nga jóge ci loolu muy nga dem ci turi doomu aadama yi boo nee sëriñ fàllu wala nga ni sëñ abdulahaat wala nga ni sëñ abdul xuddoos wala nga ni mouhamadul bachir foo ko dégg sa xel dem ci murit moo ne ay baate arab la de waaye doo dégg arab bu ko tudd loolu moo tax mu bokk ci patrimoine murit dem na ba ci turi daayira yi ak kuréel yi naka noonu euh, li gën a yomb ci àddina mooy fekk liñ doon def nga topp ci di def lañ daan def loolu moo gën a yomb waaye fent lu bees lu dëppoo ak jamono te waroowul ak diine loolu moo jafe bu ngeen seetloo àddina bi ñu bari ñu ngi fent loo xam ne dëppoo na ak diine waaye dëppoowul ak jamono wala nga fent lu dëppoo ak jamono te dëppoowul ak diine loolu war nañ koo feeñal ci ak jàngat ci biir musée bi ndax jamono ji sëriñ bii ñëw ñetti yoon la doomi soxna xamoon ubbi daara di jàngale wala nga taal jiyaar sampu nguur wala nga dem ci keru nguur muy dammeel wala muy tubaab bi sëriñ bi ñëw ni leen rus naa sama tànk yi jëm ci beneen buur bu dul yàlla am distance ak nguur jóge ca fent lu bees pul loo xam ne lii ñi fi nekkoon xamuñu ko muy nam daan jàngale tàmbulee ko ca Mbàkke Kajoor ca daaray waajuram mu gën koo dëgëral gën koo yaatal bi mu sancee Daaru Salaam ak Tuuba muy façon jànglin woon xam ne wii day tëgg nit ku bees ndax jamono loolu la laajoon euh, gàtt na bëggoon naa leen a wax li ci sëñ Moussa Ka wax euh, sëriñ bi ñu jëlee ko fii yóbbu ko Gabon ci pexe tubaab bi euh, pexe moomu dañ cee ànd ak ay doomi réew mi tubaab yi dañ cee ànd ak ay doomi réew mi euh, xam ngeen bu baax fi mu jaar yépp ci yoonu géej gi ku ko xamul it demal ci jasaawu sàkkoor euh, bi muy bi mu demee am na ay fàttaliku yoo xam ne yii dafa am solo ci patrimoine murid muridisme muy ñaari ràkk ya mu julli ca ndar fii ci ndakaaru euh, tëj nañ ko fi ci bërëb mu def fa ay xar baax waaye li ma ci gën a jàpp mooy foofu rek ci yoon wi la mu sa xalaate def jiyaar lu taxoon fañ ko tëj bari woon na ay metti metti ak waaye du metti yooyu moo taxoon mu bëgg a taal jiyaar béréb ba dafa sellul woon loolu moo ko metti woon ba mu xalaat ni war naa mën a taal jiyaar ndax loolu bërëb boobu gëstu ko tañeer bi ko dina war naa bokk ci li musée bi di defar waaye nag man li ma gën a yéem mooy la xew Gabon da ngeen di seet ni réewi Afrique centrale yooyu ñu bari ay jaamaar loola diggante Congo ak Centrafrique waaye Gabon moom li nga fay dégg jaamaarloo bariwul man bi ma fa demee ànd ak professeur Lamine Guèye suñu mbokkum taalime mu ñuy wax Basiiru Guèye teeruñu fa yóbbuñu ñuy saytu béréb bi sëriñ bi jaaroon ci waaxi ndar bañ fa yeggee ñu won ñu ni ñu fii la sëriñ bi njëkk a jullee ci Libreville moom la musaaka Ka di wax Limberwelli man dama fa ni cëpp taxaw fi mu doon jullee ma am lu ma fa seetlu boo xoolee ci sa ndijoor du mat 10 dafa am jumaa léegi te moom ba mu fay dem jumaa amu fa jullit sax amu fa boo xoolee ci sa penku ci be ab soroor ngay jàkkaar lool tey boo fa demee ku fa dem na nga ko seetlu ambassade yi nekk Libreville yépp ci benn quartier lañu nekk ñaari ambassade rek ñoo nekk ci foofu sëriñ bi jullee woon ambassade du France la ak ambassade du Sénégal ñu ngi uuf présidence de la république Gabon kon xam ngeen ni ñu seqoon mbir ma ñépp yàlla dajalewaat na leen yeew leen ci béréb ba fa sëriñ bi njëkk jullee muy Sénégal France juma ma yokkal leen ci leneen loo xam ne maa ko fa seetlu matul cinq mètres diggante fi mu doon jullee ak fi ñu suul kii premier président Gabon muy Léon Mba Léon Mba mu ngi juddu 1902 at mi sëriñ bi jóge Gabon keroog maa ngi tooñ ñoom Basiru naan leen man de yaakaar naa ne yaayi Léon Mba mii daje na sëriñ bi mu ñaanal ko moo tax mu nekk premier président Gabon ndax at mi fi sëriñ bi di jóge at moomu la juddu euh, ci jëmmal am na benn tubaab bu ñuy wax Roberts Allen Roberts moom dafa def exposition bu yéeme def ko ci UCLA Université Californie Los Angeles euh, lépp mu ngi ko def ci benn photo dafa wër dëkki réew mi yépp di Sénégal fu fi photo Serigne Touba nekk rek photo na ko ñu wone ko ci nitaalkat yeeg euh, suweerkat yeeg ñépp ñu def ci ay liggéey ngir delloo njukkal sëriñ Touba lim ñu defal moom muy ab tubaab ñëw fii sunu réew defar exposition yóbbu ko Amérique ay li yéeme ci yool ci ci jaar-jaari sëriñ bi ak ay jàngaleem mu wone ko ci ma ni kon ñun ñi nga xam ni ci ñun la feeñe waruñoo am càggante keneen di ñu ko jàngal walla ñuy dem di ko seetaani feneen loolu bokk na ci war a tax ñépp jàpp ci musée bi ngir mu jëm kanam jëmmal googu moom mu ngi ko def rek ci benn photo mooy be photo bi njëkkoon a xam bi ñu njëkkoon a am bi ñu gën a xam mooy photo sëriñ bi murid yi di ci def lu ne boo demee ci seen ma yi fekk ko fa seen njël yi nga fekk ci photo bi dem ci seen gaal yi seen oto yi seen livre yi foo dem fekk photo sëriñ bi muy photo bu yéeme photo boobu 1913 lañ ko jël benn waay bu ñuy wax Thévenot lañ yaakaar ni moo ko photo doonoon administrateur civil euh, nekkoon ci ci ci ci Mbàkke euh, kon boog photo boobu bokk na ci li ñu war a gëstu itam euh, ngir lan la def ci yoon wi ba ñépp takk ci mooy ci mu di leen ku nekk am loo ciy séentoo muy nataalu sëriñ bi leneen loo xam ne ci patrimoine lu am solo mooy màggal gi oo jotu euh, yaatal waaye euh, ñu dellu ci sëñ Moussa Ka mu ni déglul ma wax la la waral màggal ga nga xam ni sëriñ Bamba rëyal na demam gi taarix ba ama jëy sësi mooy at ma moo di lolub sëriñ Basiiru mbég ma kon boog màggal gi bokk na ci patrimoine bi gën a rëy ci yoon wi jumaa ji sëriñ lu Mbàkke dafa doon wax ne bañ ñëwee ni ko xeer ya ndokk la nekk mun leen ndokk ba muy ndokk man am naa sama benn étudiant bu ci def mémoire am sur histoire de la mosquée de Touba mosquée boobu foo ko gis xam ni lii ci Touba la bokk niroowul ak benn juma jumaa ju nekk am nga ay màndarga waaye jumaa jooju foo ko gisee sa xel dem ci Touba lu am solo itam mooy xasida yi ndax bokk na ci nekk na ci kenu yoon wi kenu yi ci gën a dëgër euh, yombal ñu xam gi jaarale ko ci ay taalif taalibe yi jël ko def ci ay daaj yu am solo ñuy fàttaliku sëñ Ablaye Ñang sëñ Fàllu Njaay Isbu Tarxiya sëriñ Saaliwu Ayse donc euh, euh, noonu ñuy daaje di ci def lu yéeme war naa teew ci musée bi ba nga xam ni ku dugg ci musée bi xam ne yaa ngi ci musée murit xasaayid yi am na ci solo lool ñu dem ci wolofal won naa leen li ci sëñ Moussa Ka def waaye du moom rek ndax Serigne Bay Jaxate Serigne Serigne Bay Jaxate Cheikh Samba Diarra Mbay Serigne Mor Kayre ñooñ ñëpp def nañ ci lu yéeme ci col gi maa ngi leen doon wax léegi ni murit boo gis ab musée la ci wàllu yar ak éducation tàggat daaray taalim daaray tarbiya daaray tarxiya ci xarbaax yi mu feeñal ci yoon wi sëriñ bi bari na loo xam ne lii euh, mën nañ koo euh, nitaal mën nañ koo soweer bërëb boo xam ni foo ko tuddee xel yépp dem ci yoonu murit it bari na muy tuuba Poroxaan Mbàkke Daaru Minan Daaru yu Muxti wiir wiir maa yomba Ceyeen Njaareem Ndindi Beleel Xelkom euh, bureau Ndar ba ci wàllu xam-xam boo demee euh, fële ci Guédé Bousso def nañ ci gëstu ci wàllu jaww ji loo dafa yéem américains yi bañ yebal fi waa NASA ñu defar film boo xam dañ ko tudde euh, rëbbukatu biddéew yi waa Guédé Bousso def ci liggéey bu am solo loolu ma ni suñu journalistes yi waroon nañu faa jiitu américains yi kon loolu itam ci wàllu xam-xam dina feeñ lool ci biir euh, euh, euh, musée bi ci wàllu tabaxin ci wàllu dëkkiin muy defar kër goo xam day am ay kees am ay bardaas ci wàllu lépp luy tabax lépp luy jëmmal architecture war nañ cee également def lu am solo kon ma daaneel Serigne Massamba musée bi musée yi fi tubaab yi bàyyi yi cosaanoo ci ñoom dañu am lu leen gàllankoor ñun war nañoo xalaat bu baax ba mu bañ ñoo gàllankoor waruñu li leen gàllankoor mooy dañuy wax ci ñun te waxuñu ak ñun musée yi fi daan am li ci ëpp dañuy wax ci ñun te waxuñu ak ñun musée bi ñuy def Touba nag day wax ci ñun di war a wax ak ñun feeñalal ñu li sëriñ bi def lépp ñu ràññee bu ñu ràññee xam ñooy ñan ci dëkk bi xam ñooy ñan ci àddina bi ni ma leen ko waxee murit boo gis musée la euh, te tey wër nañ àddina wërngal këpp euh, waaye nag saxal ko ci benn béréb mu am dalukaay farata ci ñun ba du nu jekki di dem ba Californie wala Los Angeles di fa seeti mbiri sëriñ bi euh, naam àddina bépp bokk sëriñ bi waaye nag Cheikh Ahmadou Bamba buy ràmmu àddina bi bu nu ci kenn ëppule te bu nu ko sàggane musée bi nar a taxaw ci biir université Xaadimu Rasuul ci Touba. dafa war a digg dóomu te ànd ak celleef gu mat sëkk ba kenn du ko nattable du tax mu tëju dafa war di dund di yeeslu dundal la woon tabax tey leeral ëllëg géej bari na ay mbindaafon ak i mbir waaye dara mënu koo soppi mbaa nga xajamal ko jërë jëf ci teewlu Euh, jërëjëf. Euh, ma am loo lii dama ko note woon fii bëgg leen ko yeggaleel sëñ sàmba may ma ci 2018 dañu organiser concours d'agrégation sëriñ ma sàmba moom xam na ci dara euh, ñu di ko defee ci Gabon ci Libreville temps boobu man maa nekkoon recteur université. ñu dajaleel ma candidat yépp yi jóge Sénégal ñu war a dem joŋante ji ak ñeneen ñu jóge Afrique ñu daje rectorat ngir ma ñaax leen yépp leen pour bu ñuy dem ca joŋante ba ndax joŋante bu metti la lenn rekk laa leen wax dama leen ni kenn du jóge Sénégal di dem Gabon di joŋante ji te doo indi ndab li loolu moom mayuma leen ko duma leen may mukk ngeen jóge Sénégal dem Gabon bi joŋante ji te indiwu leen ndam ndax am ngeen ku leen won yoon wi te ñaanal na leen ba pare bañ demee ñépp a jàll te Sénégal moo jël premier ci concours boobu jërë ngeen jëf jërëjëf merci beaucoup jërëjëf euh, professeur ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm fi nga daanee daaneeloo noonu ci Gabon ndax dafa xaw a yéeme lool lool ne loolu ñuy faral di dem foofu euh, ñu ngi koy dund yàlla may na ma at yi weesu at mu ne sama fukki fan yi njëkk juillet moom dama ko def addi sëñ Touba dem Gabon du ma fa ànd ak kenn nag du ma fa ànd ak mbooloo du ma fa jël caméra te kenn du ko filmer ndax du ma gaaral kenn ne ab murit laa ndax ci tax ma doon ko xam na ko te loolu doy na ma loola dafa yéeme lool ba ma bëgg ngeen xam ne ñu xam ne euh, vingt 2024 bii nu ne ginnaaw daaray kaamil ban ko fii def kenn xalaatu ko woon ñu toog ba ren ñun murid yi mu jaar ci loxo yi sunu mbokk isbu yi isbu tarxiya daara ji ñu am këru xasida yi ñoo am chance su am université waaye nag am wërsëgu toll ne université bi biñ koy samp recteur bi ko cordonné sëñ Lamine Gueye di ab murit ne ñun musée bi architecte bi def maquette bi di ab murit ne ñun conférence inaugurale bi recteur bi ko def di ab murit ne ñun la wolof wax nag bañ ñoo dab wolof nee na kenn du gis sa bakkan ku ne bakkanu keneen ngay gis jot na nag kon murit bu ne xool bakkanu beneen murit gis ci bakkanam loola foofu lan toll moo tax ñu war ko yaatal ni mu ko yaatalee te ci biir yaatal googu it kenn ku ne ci ñun war ngaa xam ne lii fi sëñ bi ba gisagun ko danoo tàmbali di ko séen ndax bi photo yi génn ñun ñëpp jàppoon nañ ne xam nañ foto bu Serigne Touba bi yi génnee ñun ñëpp ñu yéemu ci ne lii fu ne woon loolo war naa tax ñu rafet njort ne am na leneen lu mu denc te bu jotee ñu ko jox waaye kon balaa daray génn day fekk ñu jekk ba pare kon ñun ñoo war a xoolaat sunu toogaay bu gën a dëgër ngir sëñ bi am yërmandeeg jox ñu lem ñu war a jox ñu fekkee ko man ko jox suñu njaboot loola moo tax professeur Thioub duñ la gërëm dañ lay ñaanal ci mag murid yi nga bokk yàlla may la gudd fan ak wér euh, sàmm la sàmm sa njaboot ndax euh, bi ngay def conférence bi sa njaboot dafa ñëw toog nit nag te lu muy wax te am amul njariñ du woo njabootam mu toog da wax sa njaboot ñëw toog te ñu ngi fi toog te yëg naa ne ñu ngi fi toog kon nag professeur Bocoum euh, dañ lay bàyyi nga def taxaw seetlu ci côté patrimoine bi parce que wax naa ko protéger nga lu bari UNESCO ar archéologue nga te domaine nu patrimoine li ñu am protéger ko lu ci bëri yaa nekkoon directeur du patrimoine euh, dossier ceebu jën bi bi ñu koy monter di wane lekkin ci ndab ndax ñu bari dañoo defe ne ñam wi lañ protéger yàlla dogal na ma am chance ma nekkoon expert bi coordonné dossier boobu ci fa moom ak Abdou Aziz Guissé waaye lekkiin ci ndab ak yariin ci ndab ak yakkiin ak toogin loola lañ protégé waaye du ñam